na ñëpp teewlu ñu déglu tuuti rek asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi dellu si di teewlooti warno wessu wenn waxtu wo xamne dañu tewloti tewlu gu demé ni teewlu gu demee nii fa tabaarakallaahu bu baax a baax a kilifa yu tedd yii ñu leen di tudd tudd bi bi sant di leen gërëm bu baax a baax. di leen sant di leen sant gërëm bu baax a baax a baax. di leen sant suñu borom di leen sant sëriñ bi. di leen sant ñoom ci seen bopp sant ngërëm lu rëy rëy. di leen sant ñoom ci seen bopp it sant ngërëm lu rëy rëy rëy. lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. nee na lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom. waaye alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom. nu àndandoo ko. nu àndandoo ko. ba jataay bi mën a am. dal na xel baax a baax. loolu fa tabaarakallahu dal na xel bu baax a baax a baax. sëriñ bi kenn mënu ko jox ak xam. sëriñ bi kenn mënu ko jox ak xam. loolu bu bu ku seet diggante ak boromam diggante ak yonent bi. ku seet digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi. xam ne kenn mënu ko jox ak xam. nga xam ne kenn mënu ko jox ak xam. waaye lu lu ko tële tële tële nag. waaye lu ko tële tële nag. war nañoo jéem. waaye war nañoo jéem. ndax jataay bu mel nii. ndax jataay bu mel nii. ndaje mu mel nii. ndaje mu mel nii. teewlu gu demee nii. teewlu gu demee nii. danoo war ci sëriñ bi. danoo war ci sëriñ bi. ci waxtu bu nekk. ci waxtu bu nekk. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. dëgg la àdduna bari nay gàllankoor. bari nay gàllankoor lool. bari nay gàllankoor lool. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. waaye nu fab sunuy waxtu yëpp. jox ko sëriñ bi. jox ko sëriñ bi. di ko di di ko di ko di ko sant. di ko sant. cant gu amul ab. cant gu amul ab. sant ko dig diggam ak boromam. sant ko diggam ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko ci bopp diggam ak boppam. sant ko ci diggam ak boppam. sant ko it suñu diggante suñu diggante moom. sant ko it suñu diggante ak moom. yooyu cant neexut a boole. yooyu cant neexut a boole. te it moo nu war itam nag. te it moo nu war itam nag. sant yàlla bu baax a baax. mu ne nan sant yàlla bu baax a baax a baax. ba nu ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. xeeraat nu ci moom. xiiraat ñu ci moom. ba nu bëgg ko. ba nu bëgg ko. yemale wuñ koog dara. yemale wuñ koog dara. gëm ko it. gëm ko it. suñu digganteeg suñu borom. suñu digganteeg suñu borom. mu doy nu sëkk. mu doy nu sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. kon sant rek nu kon sant rek moo nu war. te di ko jéem a nag sant. te di ko jéem a nag sant. jéem a sant gi weesuwul. jéem a sant gi weesuwul. dellu ci moom rek. dellu ci moom rek. nekk nekkal ko rek nekkal ko rek ci lim bëgg. nekkal ko rek ci lim bëgg. moom boromam rek la bëgg. moom boromam rek la bëgg. yonent bi mu ko digal. bëggul leneen. bëggul leneen. ci loolu rek la nekkoon. ci loolu rek la nekkoon. bañ ko xamee. bañ ko xamee. di ko gis. di ko gis. ba biñ ko noppee gis. ba biñ ko noppee gis. kon nag alhamdulilah rabil alamin. kon nag alhamdulilah rabil alamin. Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. nee ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. lii ma wax. lii ma wax. ci sant gu nu war a sax ci sant ko. ci sant gu ci sax gu nu war a sax ci sant ko. Eh, dama ko wax rek. nee na daf koo wax rek. waaye noo noo ko bokk. waaye moo yéen a ko bokk. xam naa ne moo nekk ci yéen. te moom xam na ne moo nekk ci yéen. sëriñ bi rek sëriñ bi rek a nekk ci yéen. sëriñ bi rekk a nekk ci yéen. loolu nañ sant yàlla bu baax. loolu nañ sant yàlla bu baax. te jëmee ko kanam rek. te jëmee ko kanam rek. suñu yitte jépp suñu yitte yëpp. nañ ko delloo sëriñ bi. nañ ko delloo sëriñ bi. bu ñu ko defee. bu ñu ko defee. noppalu teeg ëllëg. dinañ noppalu teeg ëllëg. texe teeg ëllëg. dinañ texe teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. defaru teeg dinañ defaru teeg ëllëg. do yëngu yëngu baa kon mu ngoog yëngu baa ngoog euh, lii nee na lii dañuy jéem rek baaxantal rek nee na dañuy jéem rek baaxantal rek waaye dañ ko waroon a def wird waaye dañ ko waroon a def wird ndaje mi yëpp yëpp dañ ko waroon def muy muy benn wird benn wird dañ ko waroon def muy wenn wird boo xam ne dañuy am pasteefu boo xam ne dañuy am pasteefu bés bu seen bu def ko bés bu set lu def ko. loolu mooy sunu moo doon moo doon moo yey ci sëriñ bi. loolu moo yey ci sëriñ bi. kon nag ginnaaw mënuñu loolu itam nag. kon ginnaaw mënuñu loolu itam nag. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax a baax. delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. delloo lépp. delloo ko lépp. di ko yëngul. di ko yëngul. di ko yëngul ci su su sunu lépp. di ko yëngul ci sunu lépp. defal defal defal defal ko defal ko ko addiya. defal ko ko addiya. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. baaxantal ko ak sunu cant ak moom. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. sant bu baax. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. ak bokki taalibe yi. yi nu lii bu baax a baax. yi nu bokkal lii bu baax a baax. taxawaay bi ak jataay bi. taxawaay bi ak jataay bi. di leen gërëm sant di leen gërëm bu baax a baax. di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw kon nee na mu ngoog rek. di sant suñu kilifa yi nga xam ne moom ñoo ñoo ñoom lañu fi nekkal. di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal. ñooñu ñooñu ñooñu tàggat. ñooñu tàggat. ñooñu tàggat ci sëriñ bi. tàggat ñu ci sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. kon ñooñu ñu leen di sant bu baax a baax. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen wan ne noo ngi seen noo ngi seen tànk. di leen wan ne noo ngi ci seeni tànk. sunu kem kattan sunu kéem kattan. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. xamuñu lu ñuy wax. nee na xamuñu lu ñuy wax. nee na xolam dafa sedd guy. yaakaaram dolliku lool. yaakaaram dolliku lool. xel gën a dal xelam gën a dal lool. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf mbokki taalibe yëpp. di leen sant leen gërëm na ñëpp tàllal <laughs> na ñëpp tàllal. yegg ak yeggale rek. nee na yegg sëñ sëñ Fall sëñ Fall moom sëñ euh, sëñ Moutala nee na ko yegg ak yeggale yeggale rek Mbacke waaw ñëpp nangu ñaan. amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke <laughs> jërëjëf